asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mercredi 16 décembre 2020 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi.

boog la mu jàpp ne moo war a am moom njuga ja ci waxtaan woo xam ne Abdoulaye Dembélé la ko séqal lam njëkk a wax nag jàpp na ne kii di Ama Baldé daal na ko leer leer waa Pikine ne du ñoom ñooy tere Modou na Modou moom lekk avance su a ba yandoor moom njuga daal la xëy tey wax ko jàpp na ne tamit jóg yooyu Ama Baldé di jóg maanaam daal bu arbitre sifflé mu ñëw dal ci sa kaw ne na loolu day bu ko defee moom Ama Baldé bu keroogee jàpp na ne daal loolu moom du ca jëlee lu ko neex te jàpp ne yooyu muy def dox yooyu muy dox ci kaw adversaire moom njuga ja mooy wax ba tey de ne loolu loolu mënta ébranler Modou Lo jaaxlu ko tey suba waxi noppi parce que jàpp na ne mbërëm mii di Modou Lo moo ëppale Ama Baldé ay salañ salañ fukki ak juróom te jaagar-jaagari Ama Baldé saful ko nga xam ne moom moo di Modou Lo ba tey njuga ja mooy wax len nag terewul Ama Baldé reconnaître nañu ne moom mbër mu mag la te itam na boppam te bu ñëwee la mu gëm da koy def waaye nag bu ko defee ci kanamu Modou moom bu keroogee itam du ca jële lu ko neex moom mi nga xam ne daal moom moo di njuga noonu la xëy tey waxee ba tey moom njuga ja daal wax na lu yaatoo yaatoo yaatu daal ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo ci combat boobu nga xam ne war nañ koo bëri ñoom ñaari mbër yooyu keneen koo xam ne ni moom bëri nag Modou Lo ba daan ko muy Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi ñëw na ci moom tay ba tey jëkkatam mu njëkk Balla daal mooy mbër moo xam ne ni daal maanaam mbër yi nga xam ne ay mit la leen yëglikaay bi tudde ñoo xam ne daal làqar ci leen jafe ne wala régler seen i mbir Balla ne ñaari mbër yi daal saa bu ñëwee ci Balla mu indi leen ay jafe-jafe daan leen Balla Gaye numéro 2 moo feeñal Modou Lo moo ko njëkk a daan Yaxya Jóob Yékini Balla ko feeñal moo ko njëkk a daan Mohamed Ndaw Tyson kazalika naka noonu mel ni ki Balla daal mbër yooyu nga xam ne moom dañoo nëbbutu wala ñu jafee daan lool ku ci séq moom bés daal Balla wan na na li nga xam ne nii moom moo di boppam yëg li kay bi di suñu làmb xëy tey ñëw nu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi ak li nga xam ne nii daal moom moo di ay test yoo xam ne yëglikaay bi ci ay sources daal xamal nañu ne day ci ay sources yu leer jàpp na ne fi mu nekk ni daal la ñu nar mooy benn protocole sanitaire boo xam ne daal jëm ci wàllum ni ñuy reprendre waat lamb ji ngir ñu bëre nee na loolu nag su amee moom maanaam 72 heures avant combat moom mbër mucc ne danañ la testé xool ba xam ndax yow apte nga pour mën a bëre maanaam daal amoo covid 19 mel ni ki daal loola lamb xëy na tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ka nga xam ne nii nag moom moo jiite làmb ji di biraaseen mel ni ki nag fi mu nekk ni daal ci arène nationale ba moom mu ngay waxtaan ci wàllum sécurité ba ak waa police ak la nga xam ne nii daal moom mooy beesa la nga xam ne maanaam wàcc boog njëgu arène ba mel ni ki dool waxtaan yooyu daal fi mu nekk ni sumb ko ba tey sunu làmb xëy dinu wax la mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom léegi yor na bu bees muy ambulance bu géejawaay mbër ma fi woon daal léegi moom lañ nommé nag directeur technique école de lutte Mor Fadam yëg likaay bi di sunu làmb mu xëy ñëw xamal ñu lu mel ni ki noonu mel daal léegi ambulance moom ndomba tànk booba moo ko yore fa nga xam ne mooy ca école de lutte Mor Fadam koo xam ne ca Géejawaay la dëkk ba tey di Abdou Diouf yëglikaay bi ñëw na ci moom ak itam année balance yi mu teglante gëj a bëre jóge ci defet mel ni ki nag fa muy jaar ba daan giri de daal yëglikaay bi xëy na tey samp ca ab laaj loolu mooy li nga xam ne nii moom moo di tey li ñëw fa nga xam ne boog wala boog di laaj boo xam ne daal yëglikaay bi di sunu làmb xëy na tey sampal ñu ko keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom mel na ki nag moom moo di aadama Sané moom nag promoteur bu bees la ñëw na ci làmb ji daal mel ni ki nag taxawal na combat boo xam ne daal duel de feu la ko sunu làmb tudde combat boo xam ne ci luy bax la na a doon do am ruq bu sedd dox ci diggante soo technique numéro 2 ak Baye Ndiaga mel na ki komba ba nag taxaw na ñu ngi ñu ñaari mbër ya ak këleen tëgg ñu taxaw suñu làmb xëy ñëw tey wax nu lu mel na ki noonu buñ fa jógee record ca la ñuy dem record nag moom bu ñu fa demee kan fay fekk moom moo di Sawru Fall di manager général lu écrit Ndakaaru Sawru nag moom fusion ba ñuy wax ci diggante Fass ak Ndakaaru daal Sawru na moom mooy waxi ki nga xam ne moom mooy Sawru Fall ma nekk fa nga xam ne nii moom moo di ca écrit Ndakaaru ba tey tonnerre numéro 2 di mbër nekk ci écrit Ndakaaru daal moom jàpp ne loolu de bu dee lu am la xanaa kon Kati Diop da leen nar a trahir wala mu trahir leen ba tey ci record numéro 2 nekk ci écurie Fass moom tamit wax na ne daal waa Fass tal nañ leneen lu dul nekk fi naan dañuy fusionné ak kii wala kële ndax ne na kon bu keroogee moom Tafa Gueye déedéy jàpp na ne moom dana jeexal ca Fass tax jàpp na ne waa Fass gisut gisut ci loolu daal njariñ jëm ci ñoom la mu jàpp mooy fas am nañu ay mbër ay champion yoo xam ne war nañ leen a encadré bokk na ca ñoom Forza ñoom Forza ñoom Serigne Ndiaye numéro 2 ak ñu mel ne ki ñoom Giri 2 ak yeneen xale yoo xam ne jàpp na ne leen teg leen ci aw yoon ñu nekk champion moo gën ñu naan ay fusion fii suba wala fële de loolu la gis leneen loo xam ne ni record ñëw nu ko mel ni ki arbitre yi nag moom tey ci àllarba ji fas nañu yéene nag ñu daral leen fa nga xam ne moom di ca CNG ba ba tey record moo xëy wax nu ko loolu nag mu nga war a commencer le 21 ba le 26 décembre ba tey bu ñu demee ca fa nga xam ne mooy acte de l'arène ba que jiite amateur moom di dut jaan jekk ko mel na ne tey daal bureau CNG fas nañ ko yéene dalal moom tamit seq moom ay waxtaan bu ñu demee fa nga xam ne nag moom moo di ca Equivox moom kan fay fekk moo di Gris 2 moo xam ne nii daal daa mel ni xolam neexut de rawatina nag ci mbër yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy maanaam les VIP Gris daal 2 daal jàpp na ne ñoom dañoo seetaan lamb ji parce que nag seen affaire baax na ñu seetaan te neen dañoo war a wax ngir lamb ji ñu ubbi ko ngir ñu mën a bëri ñu xool ci yan condition la ñuy bëri Gris daal interpellé na ay magam moom Gris 2 na nañu wax olof nag da koo wax maanaam ku bëgg a dee daal xulle faw daal da nga wequ nuyuwaat naa leen ziaraat naa leen ñaanal laat leen jàmm saakooti ko ci yéen leen wax ne amuñu seen fay yal na leen yàlla buur bi fay yéen ñuy suivre à travers le monde di jënd seen ay connection di commentaire suñu ay vidéo parce que des fois xulle ah commentaire yi da ngay gis gars yi vraiment ñii di la ñaanal ñii naan Babacar yaa tax ma abonné ñii naan kër nangam sangam xam nga ñii di la encouragé ñii di la defal ay critique yooyu yëpp bu ci nekk rek am na njariñ parce que ki lay critiquer dafa bëgg nga gën a avancer dem ci kanam ki lay ñaanal tamit jàpp na ne fi nga nekk baax na continuer kon àddina moo tëdd noonu parce que loolu mooy yoon mais ñoom ñëpp maa ngi bégg ci yéen ñëpp nag yéen ñëpp ñëpp ñëpp gis naa gaa yi waaw yéen ñëpp tout tout maa ñoom ñëpp waaw maa ngi leen di bégg yéen ñëpp di ñëw rek suñu làmb tey bu ñëwee ci xëtam mu njëkk euh, maanaam fi mu xëy tey ñëw ki mu dalal mooy Ndiouga Dia Ndiouga Dia ancien lutteur Ndiouga Dia encadreur ci Rock Énergie Ndiouga Dia superviseur Rock Énergie yore Modou wala bokk ca ña ko yore moom Ndiouga nag xëy na tey daal ci journal bi waxtaan bu mu seex ak Dembélé kii di Ama daal teréwu da nelew xam ne moom moo di moom jóg gis bo que jàpp na ne moo xam jaagar jaagari Ama ak yu mel ki noonu ak arbitre le mu dal sa ko neen yooyu yëpp ay affaire am ay message ak yooyu defe naa ne na jàpp na ne kon Ama bu ëndee loolu tam du ci jëlee ko neex loolu nag mooy wax njuga ja loolu nag buñ ko déggee ki wax mooy ki wax mooy ki nga xam ne ni adversaire lam la amee mu war a jàkk dafay wax ci mbërëm ci problème jëmale ko ca nga xam ne mooy que mu war a bëri di adversaire bi ku ci ne mbir mi parce que lamb balaa ñu koo bëri soufflé balaa ñu koo bëri xulle di moins maa ngi jégalu jàppal ne ah sanente xeer bi dana bëri waxante ba dana bëri ku wax da yaakaar ndam laa ngi ci poosam comme la suñu papa Maxime Ragan di wax rek ñu koy nuyu di ko ziar ñaari ndamay dugg mais benn ay génn fi nekk ni ku nekk ci ñoom ci ndam nga toog Modou ci ndam la toog Ama ci ndam la toog waaye mu mel ni kon daal loolu mooy li am maanaam a arbitre génnee seen diggante ba ñu bëree ba pare ci la ñu xam ndam la fu muy jublu waaye nag xam naa daal loo ci mën a dégg moom it ñu jógee reconnaître na ah samp yoog ama ama it mbëri la moo xam ne wax di waa loolu moom defe naa ne ak lu mën a xew tey bu demee bay xëccoo couronne roi des moom yaakaar naa ne bu liggéeyu kon dara du ko def kon defe naa combat boo xam ne daal ñu ngi ñaan yàlla fekke ko tetal ko waaye diggante Modou ak xam naa ne wax ji bëri na fi ndax keroog ci ngente Serigne Ndiaye gis nañ waa Pikine gis nañ waa Parcelles am nañu jot sànni Ama ay kaddu waaw waaye nag yóbbante lamb la ubbu du galgal waaw yóbbante galgal ubbu lamb di moins loo ci a